ñu ñu ñu revenir un peu ci euh, loo xamante ne ni xew na semaine yële passé jëm ci mbirub Cheikh Bara Ndiaye nga xam ne euh, jotoon nañu ko déglu pendant toute une journée. Mm-hmm. fële euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore yoon. donc déglu woon ko ba par la suite mu ñibbi actuellement ñu jot information que lu jëm ci mbirub plainte bu Thérèse Faye boobu ak mbirub Cheikh Bara Ndiaye. Mm-hmm. division des investigations criminelles daal dina clôturer enquête bi dal di transmettre dossier bi. bi nag euh, procureur daal di koy jox parquet donc euh, sous forme de renseignement judiciaire donc fi mu ne nii daal mbir mi nekk na loo xamante ne nii ci euh, loxo procureur lay tàbbi donc bu ñu bu ñu xoolee information bi donc on peut dire que mbir yi fi mu ne li si des yëpp ci loxo procureur de la république la nekk. waaw déjà li nga war a am solo mooy. Mhm. renseignement judiciaire renseignement judiciaire. mën nga mën nga ko xaw a mais tëngal tëkkale ak information judiciaire mm. mais lii danoo am ay info yu ñu jot mu mm. dee ci journal ñu ne recoupement jot naa jot jotaat mais lii xamuñu léegi dañoo bëgg a dem xam léegi ça veut dire que renseignement judiciaire ce n'est pas le dossier en, en tant que tel mm. c'est pas ça de du yaa ma diffamé diffamé wu ma la mais ce sont les informations yi Cheikh Bara di génnee wax ne waa jii soxna si am na lii am na lii am na lee mhm. soo leen bëggee naa leen woon benn Cheikh Baar benn dina nekk un une piste d'information pour la justice pour le procureur ginnaaw bu mu jëlee dossier bi dénk ko benn juge d'instruction danaan ko demal laaj déglul ma diw ak diw mhm. wala demal ma ci fu ñu wax ne fala mbir mi xewee léegi nga dem xoolal ma toutes les personnes susceptible war la mën ni indi information pour nga am lu ñu tuddee des renseignements yi wax ne exactement. Mmh. lii nga xamante ne moom la sëriñ bi wax muy Baara Ndiaye jëmale ko si soxna si di Thérèse Faye mooy laajal xoolal ñu ko ndax am na des éléments concordants yi firndeel ne loolu lu am la. Mmh. su boobaa loolu bu amee nag exactement loolu dafay créer benn dossier boo xamante ni su boobaa ñoom ñoo xam ne ñu koy tuddee mooy dans le cadre justement euh, créé yi des ñu ne la kaay wax ñu lii nga am. nan nga ko amee mooy comment tu as pu avoir une telle euh, disposition financière mhm. lu tax nga noo def ba am alal ji mooy wàllum terrain wala kër mhm. mooy lu ñu tuddee bien immobilier nga expliquer et dans ce cas dafay dem si sa qu'on appelle dans la justification euh, licite l'origine licite de ces biens mooy mbirum enrichissement illicite kon loolu doon ko jël tegee na le benn dossier wala non ba pas mën a teg mais xam nga par exemple boo nekkee ci yoon dafay am lu ñu tuddee euh, par exemple bu ñu la toppee dara yoon bu la toppee dara. Mm-hmm. nga dem bi ci biir dossier beneen dossier judduwaat. Mm-hmm. yoon du la bàyyi ndax bi taxoon mu jàpp la walla mu topp la dafay dafay tijj beneen. enquête mm-hmm. beneen information judiciaire wala mu tijji ay renseignement judiciaire pour xool les feeñ ci dossier bii nii loolu tamit fan la war a mën a fan la war a mun a mujjee parce que tey dossier diffamation mënul gën a important dossier boo xamante ni portant sur entre guillemets mmh. mooy enrichissement illicite wala détournement des deniers publics parce que man su dee dama jël benn responsabilité ministère wala état ñu jox ma ko ma jékki-jékki dix ans cinq ans rek ma am immeuble R plus cinq R plus dix R plus vingt ñu koy compter par par par par dizaine mais su boobaa yow li ñu li nga gis ni muy bien immobilier mën nga sous-entendre que ne que man dama détourné alalu Sénégal moo tax ma mën ci jënd lu ñu tuddee ay immeuble tabax si mais dans ce cas maintenant renseignement judiciaire yooyu mooy créer lu ñu tuddee un dossier judiciaire boo xamante ni dañuy xool ndax euh, da nga luubal alalu Sénégal mhm. wala noo amee ak lii ak lii comme ñu ne kay wax ñu nga justifier ñu mhm. euh, l'origine licite de tes avoirs euh, euh, si mbir mi fi mu déparé. mbirub euh, diffamation ci la tàmbalee. bu fekkee ne ngir ñu xam ndax Cheikh Bara Ndiaye li mu wax am na wala amul dañuy dem lëj mbët ci euh, mbiri Thérèse Diouf ci am amam ak yeneen ak yooyu est-ce que mbir mi itam du mujj nekk euh, lu compliqué ju côté de de de de de Thérèse Diouf wala du doon risque boog ci côté am parce que bu fekkee ne mbirum diffamation bi bu fekkee ne dañ cee bëgg am ay preuves ñoom dañuy daal di euh, def enquête ci lu jëm ci ay am amam est-ce que loolu itam du du du mujj. <laughs> xaw compliqué ci côté am. non xam nga xam nga ja du xam nga du jafe. xam nga lu taxoon ñu ne CREI yi ku mu jàpp ci àdduna uh-huh. CREI yi ku mu topp mm-hmm. même su toppoon ku man di topp ci kaw suuf laa wax uh-huh. CREI yi bu amoon fii mënoo fexe bi doo daanu uh-huh. parce que CREI yi du la topp lu dul dafa daf ko leer ne lim la li mu lu mu wax ne yow yaa ko moom dafa da koy leer na mënoo ko justifier moo tax fu ñu ne la c'est une juridiction spéciale mooy que ne yow buñ la toppee rek loo mën a indi ci preuve loo mën a indi ci défendre sa bopp mënul nekk c'est parce que ñoom balaa ñu lay defal mise en demeure ñu ne la am nga ñetti weer tontuñu c'est parce que xam nañu mënoo leen tontu lu leen doy moo taxoon Karim Meïssa Wade même bu même moom sonn ci xam na ne moom ala kulli haal day ka kaso léegi ki nga xamante ni moom mooy li baara wax xam nga daf ne Thérèse am na lii am na lee am na lee loolu rek doy na information déjà loolu c'est un début d'info mooy que ne yow yaa wax ne kii am na immeuble bii moo tabax lii kooku dañ koy déglu ñu renseigner loolu mais pare ñu situer géographiquement loolu fan la amee. ñu dem déplacé wu bu doon pare ñu ne la Mamel la. Mhm. endroit tel dañuy dem Mamel xool parce que c'est pas trop compliqué. boo ñëwee ñu ne immeuble bii moo ko moom. léegi xanaa di nga di am ñu fay tabax. def estimation bi waaw di nga di nga di nga laaj ñiy tabax kii yéen kan moo leen kan moo leen kan moo leen sant ngeen di tabax. fii mhm. maanaam kan mooy borom. su boobaa yow ci obligé nga wax ko kan mooy borom. Ah, léegi c'est une piste également bu la leeral ne lu leen soxla si moo ko moom. Mhm. loolu dafay gën a également encourager enquêteur pour mu avancer. Mhm. maintenant dans tous les cas gis nga dossier dina ndaw doon benn. Mhm. mu jural la fitna. parce que par exemple li nga xamante ni mooy li ci mën a jóg tey boo ko toppee xam nga diffamation yomb naa gérer. loolu jarul sax ay euh, renseignements judiciaires maanaam diffamation sax pour la plupart du du am sax. dig du la déglu. Mhm. pour la plupart da ngay dem parquet ñu déglu la am na wala amul ñu bàyyi la nga dem sa yoon ñu tëj la sur nga dem sa yoon. Mhm. mais bu ñu tijjee li ñu tuddee renseignement mooy que dafa am lu ñu njort loolu ñun bëgguñu dem leer mu ñàkk ñoo leer dañuy dem pour ñu xam exactement. Mhm. bien yu la tuddal est-ce que yaa ko moom. parce que bu dee lu ñu la tuddal yaa ko moom mënoo ko am diggante bi nga nekkee kilifa ci réewum Sénégal. léegi nag loolu ñun loolu loolu la waaye dañuy sant ñu def léegi delloon nañ mbir mi waa procureur moom mooy xool lu mu ciy def. Mhm. léegi je pense que maintenant c'est le procureur qui va demander à un juge d'instruction mu jël dossier bi pour mu mu engagé aussi pour xool exactement lan moo ci lan. Thioune il paraît que euh, ni nga waxee nii dafa mel ni dossier bi nga xam ne moom moo dox ci diggante Cheikh Bara Ndiaye ak euh, Thérèse Faye dafa retourné wu contre ki nga xam nag mooy Thérèse Faye. exactement xam nga ci mbirum Adji Sarr bi. Mhm. waxoon li tax procureur. bu ci biir dossier bi amoon na yeneen dossiers yu si juddu. Hmm. loolu en général su amee xam nga lu ñu lay defal dañu lay def ce qu'on appelle un réquisitoire supplétif mooy lu ñu lay faam lu ñu lay toppee waaye bu ñu lay toppee gis nañu beneen mbir boo xam ne bokk loolu taxoon ñu topp la. Hmm. su boobaa mbir boobu du ñu abandonné premier dossier bi de. Hmm. dañuy jël même le premier dossier statuer ko ba pour poursuivre dossier bu ci feeñaale pour xam lan mooy lan. mooy que ne yow bu ñu la jàppee ñu ne la yow da ngay violé da nga da doomi jàmbur exemple ñu ne gis nañu bu ñuy def enquête pour xool ndax viol bi am na gis nañu ne yow dama doon jaayaale sax drogue mm-hmm. kon dañuy toppale piste pour xool bu doon da ngay jaay kooku doon jaay ak kanan kan nga doon am rek pour jaay ko ak ku la doon fournir ak yow aussi est-ce que yow tu es seul dans dans ce qu'on appelle ce business et dans ce cas dans tous les cas dañuy topp xool et bu ñu gisee ni am na élément yu prouver que ne yow da ngay def lii wala yaa ko moom loolu li te da ngay def lu yoon tere mais dañ lay jàppale si loolu c'est-à-dire que yow mën nga porter plainte nit prison mhm. prison yoon yoon gis ne également man li ma doon waxal loolu yemul simplement ci wax yoon mun na santaane ñu xool yow lu mu lay waxal nag ndax loolu la parce que au-delà de la diffamation mm. les faits son telement euh, d'une sérieuxité extrême mooy que ne bu dee dëgg la mais c'est extrêmement grave parce que mm. mooy am nga immeuble bii am nga lii ak lii ak lii et je dis bien amul kenn ki war a nekk ministre dix ans sax bu dee da ko teg ci yoon mm. nga war a am yenn alal yi mënul nekk mm-hmm. parce que un ministre son salaire ne dépasse te mënoo ne quand je dis 10 millions pour être gentil. Mm. salaire yi matul 4 millions. léegi 4 millions supposons ñu fay la ko chaque mois 10 ans ñaata la. 4 mm. millions pour 10 mois c' est 4 c' est 40 millions. pour 10 ans c' est cent millions te mooy mooy doo ci laal un cent un franc. Mm. léegi wax ma ban kan moo fi nekk pendant toutes les 10 12 années mosul mosuñ ko changé ñu tegg ko. même bu dee am na. mënoo am xaaju milliard. xaaju milliard nga yem ci salaire mooy 500 ah ak gars yi nañu yebee milliards nii milliards ah. milliards milliards milliards. waaw mooy 500 gars yi da nga koy <laughs> milliards. mooy 500 millions yoo xamante ni da koy dajale ñu lay viral rek mais doo ci laal 100 francs. doo doo laal dërëm. Mhm. kon doo ci jënd kër. kon doo ci jënd oto. Mhm. waaw léegi yow ñu ne bu ñu la dajalee sa virement bi yëpp pendant 12 ans matul cinq 500 million mhm. mais yow am nga bien yoo xamante ni oto yi ngay am des fois nga jënd cash tout de suite un véhicule qui coûte 50 millions. ak événement moo koy jëlee. nga léegi dem ci ministre bi mu ne la lay jox paas c'est-à-dire que bureau ministre warul am paas. <laughs> amul c'est-à-dire du am warul am. parce que ministre bi moom bu dee ci ministère dañ la dem le ministre c'est un serviteur de la République. un hmm. serviteur du peuple. mënoo nekk un serviteur ñu ne la yow alal ji lay ñu lay nattal assemblée nationale mu nekk ci compte bële ci trésor. Hmm. boo soxlaa nga génnee bind la chèque ci turu ministère bi nga fay ñu ne yow dañuy dañ lay fekk sa bureau. ay militants ñëw di la seet si nga jox leen paas amul paas buy mat cinq cent mille manque manque maanaam bu gën a ndaw ay ay cent mille cinq cent mille quatre cent mille parce que doo gaare car nga am dix personnes nga leen di jox ay cent mille bu nekk. Mm-hmm. c'est-à-dire c'est des millions absolument rien fait pour le Sénégal. si ce mm-hmm. ñëw soutenir seen nga jox leen benn xaalis dem di loolu noo koy justifier. léegi ku am possibilité jox ay militants benn million brique tout suite. Mm-hmm. mais kooku amul possibilité buy wàcc yóbbaale. bañ a <laughs> saabu lay yóbbu moom. <laughs> allez-y Momo. oui oui. allez euh, alors euh, Thioune euh, avant ñuy tëj ca ponk boobu. li ma bëgg xam mooy lan mooy doon suite diffamation bi par exemple tey jii bu waxoon ci immeuble boobu am na maanaam enquête bi nga xam ne ubbi nañ ko jëmale ko ci euh, boobule mbir ñu dem ba ci biir xam ne Cheikh Bara lu mu waxoon ci euh, ki nga xam nag mooy Treize Faye am na immeuble bi existé na bu nu xaymaa aussi li nga xam nag moo di njëg bi njëg bi daanaka jege na li nga xam nag moo di milliard lan mooy doon suite diffamation bi nga xam daanaka fa lépp euh, sooxee ko. non benn xam nga bu doon bu doon diffusion de fausse nouvelle supposons la koy toppee. Mhm. bu ñu bu bu ñu xoolee ne loolu Bara wax lépp dëgg la. Mhm. su boobaa moom dossier boobu dafay def suñu ko ne dafay éteindre l'action publique sera l'action sera éteinte moo mhm. dootul dootul amati parce que day fekk li ngay toppee waa ji moom lu mu wax dëgg la mhm. loolu mooy bu dee diffusion de fausse nouvelle maintenant dans le cas d'une diffamation mhm. même bu fekkente ni par exemple justice boobu tijji renseignement judiciaire ñu gis ne li Serigne Bara wax exactement dëgg la dara changé wu ci dara du ci fen loolu soppiwul dara ci li ñu tuddee diffamation parce que diffamation tekkiwul ndax dëgg la wala dëgg dafay tekki justement est-ce que liñ ma waxal est-ce que yàqal na ma tuuti. Hmm. wala atteindre na ma lu ñu tuddee moralement. est-ce que laal na sama considération wala sama dignité hmm. et dans ce cas le juge moom mooy apprécier donc pour dire que euh, même bu nekk dëgg dossier boobu day continuer def diffamation day continuer waaw oui ah Cheikh Bara yàqal na ko de. dem moom mais mais mais par exemple bu dee lu mu wax hmm. dëgg la lu muy jural kële moo gën a mm. garaaw lu muy jural Cheikh Bara parce que Cheikh Bara mënoo ko tëj ci loolu. parce que diffamation man mosuma gis en tout cas ku ñu toppee diffamation tëj la kaso. ñu ne mm. daa ngi ci kaso bi nga tëdd déedéet. Mm. sursis lañ lay dóor jox la nga fay. mais Cheikh Bara si dossier bi mënu si fay 200 millions. non loolu Ousmane Sonko <laughs> te tey man lu waay xool naa ba sonn waaye gis ma fu ñu bind deux cent millions ci diffamation waaw te Pape Alé Niang doon nañ ko benn peine diffamation hmm. mooy dossier euh, kudd boobu nga xamante ne hmm. ñebbe bi xaw yooyu noonu hmm. kooku dóor na ko diffamation Pape Mody Niang euh, te mu nekkoon off nag. doon nañ ko diffamation pour 6 millions man ñi ma gis yëpp ay 6 millions 4 millions. récemment Cheikh Yérim fois. mais boobu benn yoon la woon quoi boobu moom cas bu spécial la woon. <laughs> ok cas bu spécial mu doon lu doy waar. alors euh, Thion dañu daal di wéyal ba tey ak euh, beneen scandale bi nga xam ne am na fële ci euh, pôle urbain bu jam Diamniadio ak li nga xam ne moom la cour des comptes daal di génne ci mbir moomu la cour des comptes a relevé de graves abus. en temps la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio